waaw c'est vrai ku sàkk caniveau war nañ laa mën a jàpp waaye dafa am lu leen intéressé ak lu leen intéressé wu C'est ça le problème. Mm-hmm. Aïcha en tout cas merci beaucoup pour euh, ces éclaircissements je crois que tey ñun ñëpp suñuy lanterne euh, je crois euh, éclairé nga ko kon nag faaw ñu dugg nag dem ci économie xool foofu la itam ndax ni ñaa ngi suqali ko am déet Binta Ba dafay dikk ak ñun tey ci wàllum tourisme te junj nañ ko tantôt est-ce que là a du génie ou on en manque c'est tout de suite <laughs> Alors, on parlera la, des conséquences de la troisième vague sur le tourisme à Hambourg et on repartira aussi sur les actualités économiques de quelques pays. Alors, Hambourg, troisième vague bi ba sonal na leen wala mm. sonalu leen. mi ngi noonu asma coronavirus nga xamante ne nag bu mu duggee ba léegi secteur tourisme la gën a sonal fépp foo dem ci àddina bi ndaxte gis nga ko ci première vague bi déjà roplaan yu bëri arrêté woon nañ li nga xamante ne moo di trafic yi fépp foo dem rek tourisme bi mooy gën a metti ndax dem beeg dikk bi ak dajaloo bi nga xamante ne xëy na nit ñi dañ koy dajaloo troisième vague bi itam ne saraax dugg Sénégal yan jeexital la fi am ndax am na ay répercussions yoo xamante ne nii tax na. ba nit ñi gën a sonn yooyu la réponse dinañ ko am léegi ba dara am na fu mu doxantu euh, fële ca Mbour seq benn waxtaan bu am am solo ak kenn koo xamante ne yor na fa otel dañuy dem jëli élément bi léegi léegi ànd ci ak maam Sidi Diop ak Bakary jëli ko dellusiwaat. du loo xam ne euh, dañ koy defal keneen ku dul suñu bopp parce que boo protéger population bi da ngay mel ngay protéger sa bopp du coup je crois que c'est c'est c'est ce normal fii daal sans le respect des mesures barrières l'accès est complètement interdit foo mënti parce que dañu bëgg a protéger suñu bopp bi protéger aussi population bi. les conséquences sont énormes parce que on a perdu 60 à pour cent euh, de la facture ce qui est normal parce que euh, euh, structure bu mel nii nga xam ne day accueillir ay nit mbas mi daje boole ay nit je crois que. nous, nous impacter ko quoi mais on essaie de faire avec on essaie d'être euh, créatif c'est le concept qu'on a choisi c'est le diamant noir privilégié recevoir et, et, et des familles ensemble, le même nucléo familial. Des, familles qui habitent ensemble, qui ont les moyens, et puis qui veulent de Dakar, vu que Masmi Dakar, le Ghana Bari, Diamant Noir, c'est un lieu sûr, c'est un lieu euh, euh, tranquille. Du coup, les familles préfèrent venir au Diamant Noir. Mangane, tu l'es contre président <laughs> seen suivi ñàkk ñàkk ma. wax na dëgg moom daf waaw noonu la moom moom macha allah il y a une nouvelle rubrique justement dorénavant qui dit su ma nekkoon président mais bi taba <laughs> pour revenir justement à l'économie euh, et au tourisme fële ci Mbour ñoom nee lan. waaw voilà Asma comme ni ñu ko gisee nee na ñoom nag li dal ñëpp moo leen dal coonay kese moo leen dal <laughs> Asma boo ko gisee troisième vague bi euh, xëy na xawu fi yàgg yàgg yooyu mën naa ne ba tey ñu ngi ci mais yàqu-yàqu yu mu fi def amatina solo bu baax a baax parce que ñoom seen facture tey jii nee nañ dem nañ ba soixante dix pour cent yoo xamante ne dañ koy perdre mais xam nga nag sénégalais dafa am génie bépp situation bu ñëw mën nañu ut benn euh, porox ndoolu buñ def wala nuñ ko contre contrecarrer ba noonu nee na tey jii euh, ñoom dañuy privilégié privilégié par exemple bu fekkee famille la comme ñun ñuy suba teel nga xamante ne. Mhm. mën nañ fa doxantu ñu xam ne ñii ñoo bokk fu ñuy nekk donc bu ci euh, kenn infecté wu rek c'est-à-dire que ñeneen ñi amuñu xëy na chance pour infecté bu ko defee bu ñu génnee beneen famille mën a dugg loolu itam bokk na ci ay solution yi nga xamante ne asma dañ ko préconiser leneen itam loo xamante ne ñu ngi koy junju depuis euh, mbas mi dugg ci Sénégal ba léegi mooy tourisme local fexe ba xëcc ñoom day faatoog lañu moomal suñu bopp asma dafa am benn borom xam-xam bu mag bu ma doon waxtaanal mu ne mu fépp foo dem ci Sénégal rek mën nañ fa def tourisme parce que dëkk boo laal ci Sénégal histoire kese la. loolu dañ ko war a jël mettre ko à l'avance ba nga xamante ne képp ku ñëw rek di nga fi gis sa bopp sama yaay dafay faral di ma naan ma euh, bu fekkee ni tubaab bi ñoo ñu dàq ay immeuble ñu def ay immeuble est-ce que dina safe donc war nañu def retour suuf euh, si xëy na di ci def néegu ñax yooyu paay yooyu bu ko defee tourisme bi day gën a neex asma. mais pour ne pas faire de la pub il y a des hôtels dans le Sine Saloum yoo xamante ni ils reviennent à cette source là nit ki lu mu xamul ak lu dul yëfam boo ko ci woy du la wuyu xam nga ñun tey boo fi tegee suñu géwalu juddu bu ñu bàkkee rek ah waaye yow boo yoru doon dërëm sax da ngay wuti dërëm du dëgg parce que kooku day xam fi mu war a waxee ak yow ak fu mu war laal donc tey jii ñoom le génie avoir du génie ou du tact c'est justement revenir à l'inspiration de li nga xamante ni moom la ñu moom ñun nga fexe ba teg ko en France partout en Europe ils ont su comment transformer ba ci Maroc gi leur population en touriste local tey jii da ngay dem ci gox bële tey li am Ndar amul Dakar kon ki dëkk Dakar war na am kumpa dem visiter Ndar gi mm-hmm. bu fekkee ni dañu ko defar ku dëkk Dakar war na am kumpa dem ba Rufisque pour passer son week-end te mu considéré ko comme vacances. Mm -hmm. il faut qu'on arrive à ce stade là Casamance a ngi fi. Mhm. asma da gis ku mel ne man musul xam Saint-Louis xamul Thiès xamul Saly di di viser Dubaï wala muy viser feneen ak feneen. donc mais dañuy wax boo dëkkee ci dëkk da nga ko war a xam. Mhm. c'est important parce que boo demee Casamance am na lu bari loo xamante ne war nga ko mën a découvrir comme li ngay wax nii boo demee lël yaa ngi fa leneen ak leneen mun fa am ay découvertes yu bëri en plus ñu am culture di dem en famille. gis nañ ne famille choco choco yi ñoom ñoo ëpp li ñuy dem weekend ñu naan ñi dañoo tubaabe du loolu dañ koy dañ koy dañ koy ibbi bu fekkee da liggéey eh, da nga nga liggéey ay weer yaag sa famille mhm. ñu jàng ñoom itamit ay weer ba vacances ñëw war ngeen mën a tànn benn deux semaines wala un mois boo xam ne war ngeen mën a dem euh, bu ngeen demee euh, bu ngeen bi ngeen demee euh, Casamance année bi ci topp ngeen dem Saly parce que Saly y a de beaux endroits Sénégal sax la ñuy wax fépp foo dem dafay am loo xamante ne war nga ko fa mën a découvrir te dafay neex ñuy changer air te jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy wër yëngu ñun yàgg nañ dem vacances de. boo woon noonu lor man ñooy nekk xale <laughs> boo la laata ngay wasinul boo wasinee da nga dañ lay yóbbu sa kër yaay trois mois <laughs> du vacances école bu daan tëjee dañ lay yóbbu sa kër parrain wala marraine wala bàjjen wala turandoo mhm. loolu du vacances mhm. lu dóor du jógee koñ bi dem koñ bee loolu doon vacances <laughs> lii lañ leen di woo li dong la amul tubaab bi ah da nga xewi da nga xewi man yi fi mag ma neex vacances amatul mais ku xeebu sa noos kenn dàq la noos nit ki euh, même que parent bi ci boppam yooyu yaa war a teel a tàmmal sa doom yenn nii comme par exemple dafa am benn anecdote boo xam ne man je pense que ba may def CM2 la sam papa dafa ma jël yóbbu ma ba Gorée ma ñëw semaine bi topp ma def compo ñu laaj ma presque même sujet bi ma wax la ma gis presque meilleure note bi maa ko amoon ci classe te mën na am su ma dem woon gore peut-être du ma am note bu baax kon nag ñun kii parents yi nañu jël du xale yi di leen tàmmal yenn yi mais prix yow xamoo benn région Sénégal tëb di laaj tamit nag di laaj avion tamit waaw roppalaan bi ah, roppalaan kon ngis ta la ci <laughs> dootul vacances dootul vacances déedéet ah, su ma ko laal waane mënta weesu nga ay jamay ay jamaïcain ay jamaïcain jóge Jamaïque ñëw Sénégal nga yóbbu foo xamee ni Euh, euh, euh, spectacle ba nga leen di woon reggae reggae lañ fay tëgg te ñoom ñu jóge fa fa reggae fa mooy li ñuy def nii rek mm-hmm. dem jël ay hôtel quatre étoiles cinq étoiles def ci ay xam nga tubaab bi moom fa mu jógee de cinquante étoiles la fa bàyyi ah. yow nga di ko def cinq étoiles amul yi da ngay gis ñu jógee fi ay je vais pas citer des ñoom suñ jógee fi ñun suñ jógee fi luxe la ñuy wuti gis ñu dem ba ay lac Loma la la lakklement nga xam ne benn nuitée rek benn nuitée rek salaire u fonctionnaire la dañuy yóbbaale ay coro wala xam nga waaw lañ fi yóbbaale dégg nga suba ñu ne am na ku jëndal euh, kii am treize millions oto coro waaw treize millions ci économie lañ nekk de la treize millions yooyu fu mu dafa ko mu jógee dugg fee du xaalisam xam nga ah. coroom la ko jëndal wala ah, jabaram loolu lañ wax coro ay waay ñii ñoo <laughs> ah, mais ministre bi économisé yaakaar naa war na mën a am treize millions normalement ministre bi économie waaye ma ne la jamono économie lañ ne ba économiser di épargne uh-huh. bu dee cadeau boo xam ne yàgg na koo bëgg nga jox ko ko da dara jigéen valeur am jigéen amul valeur am eh, bàyyi loolu ah, jigéen soo koy defal da nga koy defal ak li nga moom ak li nga moom pour en revenir au sujet <laughs> gis nga tourisme tourisme dafa bëri façon uh-huh. ah pour pour pour pour dugg ci sujet Binta ba ne lii tourisme la yow lii rek lay tourisme Bir